nak la seigne Bamba defoon ak Cheikh Ibra lay def ak yow nek sa Baay Faal man duma daw duma day duma nebutu duguma ci nek wowuma la ci ab tabax yeguma ci kaw etas ci digg mbedd di daara xuddo si laa toog dëgg la man nëbbutuuma wallahi loolu leer na man nak lima bëgg soxna maam xëri man buguma dara gis nga ñima andal dañoo ànd ak man kuti ba pour ma dégg na président mënut a gañante motax ma def coalition jappale Macky Touba ak mbacke bama jappale maki Touba ak mbacke ma parane lu bari lam bëgg nga def ko lam la téré nga bayiko ko man sa bay fa la dootuma sa leader sa bay fa la ndax keneen kum fi jigen duñu and ak mom soxna maam xëri man maa ngi lay té di la sant di la jëbbal sama bop ak ñima andal nak actuellement man duma ma dem duma ci participer ndax dama bëgg gagner kuma saga bal na la kuma ma bal na la man dama bëgg a gagné au premier tour rek pour les mamans su paré nak nu xex ndax man noonaa xex waye actuellement duma ma au premier tour rek la bëgg bu ñu gagné ba paré nak lu waay di wax nang ko ko ak man man su à tout waaye actuellement je ne bagarre pas. dégg naa kontaan naa ndax bari mbooloo yu ma dem bari na ñu ma woo waaye ku tànn ci mbedd dajale mbooloo mu toll nii ci jigéen man ngi koy doog a gis ci Touba. dëgg la da lay invité ci saala wala ci biir këram ci ëttam wala moo woote ci kaw terrasse am waaye nag lii boo ko defee ñun ñu bett. ndax doomi gaynde gaynde rek lay mën a doon kon tey soo ñëwee wane lii loolu duñu mën a bett man nag dégg naa sa wax wax nga wax ju ab Pastef waaye nag danaa la tëye sëriñ tuubaa bi mu wootee am na ñu fa njëkk maam Cheikh Ibrahima Fall waaye Pastefam ak liggéeyam moo tax Cheikh Ibrahima am fa lam fa am dangaa ñëw nag ne ma dinaa ànd ak yow ci politique dinaa doon sa Baye Fall man itam danaa la def la sëriñ Touba defaloon Cheikh Ibrahima booba Touba ma defal la Serigne Touba defoon Cheikh Ibrahima Fall. waaw wallaay. danaa la jàpp danaa la jàppal sa njaboot gi. Hmm. sa maire yi ak sa responsable yi nga xam ne ñoom nga àndal di politique ak sa responsable jeunes yi fi nekk ñoom ñëpp incha allahu rabbi danaa leen jàppale ba nga ba ñu yëg ne jàppale naa leen. incha allah. nga waxaat wax bu am solo xam nga dañuy wax ne ki xam kooku moo mën a indi résultat. Hmm. waaye ki xamul.